is another Korka Street Talk. Today we are here right at uh, Gambia College, Birkama campus. So, so today we want to ask them in which year this college was built. Not the college itself, but like uh, Birkama campus, in which year it was built. So follow me. There are some students here. I know it's during the weekend, but we have some students here. We might talk to them. They might answer the question. So let's go. Good afternoon, everyone. How are you, sir? What is your name, sir? My name is Amaru Kamara, but uh, I ah. have a question for you first. Okay. If okay. you answer it, I will give you $200. Okay, what is your question? My question is, a student goes to school. Yes. The head teacher asks him, what is your name? He said, my name is Mr. X. Yes. He asked him, how old are you? He said, I did not know my age, but if you use my age and divide it to my mother's age, it will be two equal parts without no remainder. He said, how old is your mother? He, the, the mother told him that, I do not the boy said, I did not know my mother's age, but my father is five years older than my mother. He said, how old is your father? He said, I did not know. But if you add my age, my mother's age, and my father's age, it's equivalent to 100. No, no remember, equivalent to 100. And if you divide the, uh, the child's age to the mother's age, it will be two equal parts, no remember. I don't know. You don't know? <laughs> No. I don't know. Now, can you answer the question for me? Ah, okay, I can try. Okay, give it a try. The question is. Uh -huh. No, you have to give me something before I. I answer. won't give you anything. Okay, the question Are is. Are not willing to share? 38, 19, 43. How come? How comes? If you divide 30, 19 into 38, it will be two equal parts without no remainder. Yes. If you subtract 43 and 38, it will be a, a difference of 5 without any remainder. Mm. Add the 3, you will have 100. Yes. So are you a student of the Gambia College? Yes, I am. In which year this college was built? Uh, actually, I don't know. Huh? I don't know. You don't know? Yes. Uh, really? Yes, I don't know. Who is the current head coach of the Gambia football team? The current head coach? No, I don't follow football. What do you follow? I follow my my my skill. Uh, yes. How are you, sir? Fine, thank you. What is your name, sir? My name is Mr. Jaju. Okay, Mr. Jaju. Yes. What is your role at the Gambia College? I am an art lecturer, okay. head of art department, okay. Gambia College, yes. Okay. School of Education. Okay. Mm For how long you are teaching here? Uh, I came to the college uh, since 2015. Okay. Yes. Okay. Were you a student before? Yeah. I was a college. student here. Okay. Yes. Since 1999, we were the first batch to enroll here okay. for a three-year program. Okay. Yes, diploma, that is PTC. Okay. Yeah. In which year Gambia College was established? Uh, I cannot say per se, but then I'm sure maybe that it was way back in 1950 something. Mm. So the 50, I don't know, but around 50. Okay. Because it started at Yundum College. Okay. They later moved to the Gambia College, where the army camp was. Okay. That's where Gambia College was established. Okay. And they later moved to Brikama here. Okay. Yes. Okay, now, mm -hmm. uh, how, what colors are the primary colors? For, for, for those students who don't know. Mm. primary colors. yes. <laughs> they are red, blue, and yellow. Why red, blue, and yellow? Yes, because they are the colors that cannot be mixed by any other colors. Okay. This is why they are called primary colors. Okay. Yes, they okay. cannot be mixed by any other colors to obtain it. Okay. Yes, they are the first colors, and sometimes we call them the mother of all the colors or the fathers of all the colors. Okay. Yes. Who is the current Minister of Information? Uh, Dr. Sise. yes, Ibrahim Sise. <laughs> okay. <laughs> <laughs> So, so uh, ah, like, okay, now, now we are going to play a fair game. Thank you so much, sir. We are going to play a fair game now. So you can ask me any question you want. Anything real relevant, I mean. Huh? Ah? So now, who, you? How are you? I'm fine. Okay. If you mix red, if you, okay, okay, if you mix red, red color. Namaste. if you mix red color and white, what will you have? You cannot mix those two. You cannot mix them. How about uh, red and blue? Red, blue. Yes. No, those are primary. You cannot ah. use two primary. You can use two primary colors to give you secondary. Yeah. Ah. Okay, now, what colors do you mix to have orange color? Yellow and red. Huh? Yellow and red. Yellow and red. Mm. So it will give you orange. What color will you mix to give you green? Green. Yes. Uh, green blue and orange. Huh? Yellow, yellow and orange. Huh? <laughs> you don't know? Your name? It's Wia Sidibe. Sidibe. Yes. Okay, who is the current Minister of Information? Uh, actually, it is uh, Dr. Sisi. What is his full name? Uh, Dr. Ismail Sisi. Mm. Who is the current Minister of Higher Education? Higher Education. Uh, no, actually, I have no idea about that. You have no idea. Yeah. Okay. Now, in which year Gambia College was established? It was 19, 1954. 1954. 1954. How sure of you? Yeah, 100%. 1954. 1954. Why? Why do you come up with that date? Because it was that the day that uh, Gambia College was established. Ah. Yeah. Oh, okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. Anyway, so it's Corker Street Talk. Uh, let's go to Birkama. and see what we can have. We are in Birkama still. Let's go inside Birkama. Amarap. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Nakala warsa. Ah, Nakala di. Rabal ñu bam. Ah, no, I cannot rap. I cannot rap. Boy. I cannot rap. TikTok rapal ñu nak. Rapal ñu rek. <laughs> Ah, boy wa man mënuma rap. So moy lolu rek. So nanti dugg Birkama market new hall. Wah Birkama yi. Boy I cannot dance. I'm a fuller man. Ame, huh? Ame Fula man, I don't dance. Ah. Ah, nag suma gaay maa ngi biir Kaama nag. Dëkki dëkki dëkki Waaw yee. Salaamaaleykum. Alberi. Aha. Yes. Salaamaaleykum. No, you see gaay daw kay oncle. Salaamaaleykum. Oncle naka am nag. Oncle yaa tudd naka. man ma tudal Lamine Diawo. Lamine Diallo. Diawo Lamine Diawo. yow ok yow loo yow def fii mun toge ni wa waaw mun ngaa toogee man ma fi di da suma wursak ah so yow loo dee jaay fii. banta la de jay ok so naka la business bi nekati dohe doxee. alhamdullilah ñu ngi sant yàlla ba mu wa eh. wa banta mu ngi am. Ah, am amna amut. ah ah ok. wa wa ñu ngi si gërëm sant yàlla daal. ok man jafé jafé ngeen ci de gëna a naka naka gis. bëri na daal ah. waa because fu mu amee problème la ok and then hanga yëfi business mooy loolu euh, first of all if you don't have the starting capital beneen challenge la mm, <coughs> and then <coughs> boo amee challenge bi eh, capital bi tamit product bi noo ko amee it's another thing so these are two things yoo xam ne dañ daal Who is the chairman of Birkama Area Council? Oh, chairman bi foog uh, well I'm not into politics why um, yaa fay taxi mom amuloo kala no um, that is not the issue Faying tax is not the issue uh. wow man ma dugur ci affaire yi rek wow wow man ma man maa bokkul si yëf yi okay. okay. ok léegi jeli ba kuyate first album am bi naka la tuddoon ak ban yàlla bro est ce que yow sax xam nga lolu gor ga. non fausse album am naka la tudon ak fa la. ay fausse album jali wa wan at la stade way non man wa at de moment at bu stade way de ban iya la album am bi génn ak album bi naka la tudon this is what I'm saying you have to know who wa is in the first place bala nga xam fausse album jali wa man wa moom mag so du ma mën du la mën a waa. xamuloo fausse album jali wa nay nay man du ma la mën a fausse album jali wa ban at la génn. naka la xam lo ko. <laughs> I cannot tell you that. Okay, yo yo, ban track jali wa nga gën man Jaliba music am soriwuma si. Ah. waaw soriwuma si. ok jërëjëf waaw thank you. Kebaba. Itodu. Ibrahima. Ibrahima. Hmm. Ah, Ibrahima naka caa ko. waaw nakam. maa ngi cool yaa ngi ok. sant yàlla bu baax. Brikama Area Council ka mooy seen chairman bi. <laughs> boobu de xamuma ko de. amuloo ko Jaliba Kuyateh album bi naka la tudd first album am bi ak ban at la génn. <laughs> Jaliba daal man Jaliba rek laa ci xam. ah waaw eh? Jaliba rek laa ci xam. ah ok jërëjëf. ah kon kon waa waa Brikama yi xanaa moom lu yow. wala waa Brikama nekkuñ fi ah kon nañ ñëwee ñu ne waa Brikama boor bii lañ nekkee ah eh, Kebama ki waa Brikama la de waa fan nga. nde no american wol de american <laughs> ah. ah okay imam bo Brikama bo american ah, ah okay den den ibe mu nekk kan jam jam jam na dogu laldi ah hmm. eh, jumalen Brikama area council la chairman chairman ah. malam mkahamele kakujankuba bammalowino ah. nda antol yir kuworeke ino ala yiro ah. dunga finde do kuweke ino ah, bungole rufu yalo ne jeli ba kuya tela fos album a to dum anin a fundita sanji jumal eh, molo ino ngaf molo molo abarka yamoy thank you man god bless god bless <laughs> no no na manga rabale jumala mi la favorite artist di dunia nde Chris Brown, you know. Chris Brown. Yeah. Ala den kill den ba. Never cool, never cool. Chris Brown boy ki americano la de malango le mat. Fa de mo malango le de. No no no, ne man travel. Ah, ito ko bota America. <laughs> Never cool, never cool de. Eh. Uh, jaman la. Hard lebi jamo sol. No no, state lam boy hard lebi jamo sol ba state le no. Ah yeah. Yeah, man. Ako hard lebi jam bari sol ba state le. I like it. Hey, birkama molu. Birkama kolle. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. alɓeɗi keɓama mbeñim ma nu a ah. salamu aleykum chief oncle iɗoɗima ɗum abdoulaye abdoulaye abdoulaye diallo abdoulaye diallo mawɓe on bonni way fo len gis pol bu santa diallo rek saccakat la kiitiye len ko de moytu len ten poosi de way bañilma way tuuti a ah, tiye len tiye len ten poosi no mi haɓɓete ɗo de ok ok ko mama birkama eyi ko hombo woni birkama area council ciamano e eh, min mi annda wi ɗum nde mbiɗen ko business ɗum ah. eyi jeli ba kuyate first album makko on ko honno inete ko hitande o nde o yalti e eh, mi annda ɗum gonga gonga no ok jarama mi tomi yusfalde ah? yusfa yusfa diadiou yusfa diadiou ah. foye ɓota birkamal mi wota birkamal iɓota birkamal so e birkamal on Abrikam ha. Mm. Yes. Okay. Kabila jelle be Birkam. Kabila tani lul eh mwa mwani lul. Mwani lul. Ah. Ah okay. Sai uh, ah, Jumalem chairman Birkama area council. Um Yankuba Dabo. Okay. Jelle ba kuyare ala first album to dum ando abota sanji Jumal. Ani mawlo. ah. <laughs> Andu andu Jelle ba ba is the most famous man in Birkama. Ah ndefa ngolon ne bare man ala first miss go ma na. Ah. Abarka yamwe. ok ok chief. Abdoulaye. Abdoulaye Bojang. Abdoulaye Bojang Ba. Ah, ñu ñu ñu ñu ne taamu kombo. ah tout le temps kombo la. yalong yal kombo mm. ti. yalong tembo ta bakawle. le taamu je. yes kaci kali ama ila ah. na na step dar na because le ah. al datlo woti ah. mbama funen futo bagola dim folo asu wulwol to ah ok so ye du ye du bojal du bojam no problem ah du bojam wala mo la alkal du bojam ha ala sista ah. wala mo elde sista ka fo atom kadi fingo kadi bojam kadi bojam ha ah, woni ndi bojam be di sem fada ah ok elde sista mo mo ah ok du bojam nos mi very well bari bari bari den den ite ite ko molom bakale non tam brikam lan sare ngol ah ndam jan dingolti ah ok nde na parents wol dia france brikam suma kunda mm okay dia je brikam kunda kabilo kabilo ba fa yamin je wala ah ok so saying Jeliba Kuyate, yalo kata fana buta birkamale. Andu is one of the most famous pa person in this country. Andu aning especially birkama. Yalo birkama kol ka nganya bakel. Especially it is number one fans. Ite number one fans. Okay, abi Jeliba la number one fans fele saying. Jeliba la album follow. A funti ta sanji jumala. Andu album nyin todum.

killing fonye ba mi yalon ko yewo like le killing dro killing dro no je wa dongilo gay la gas ya atale bra dongi dobe tu nyalom han nga dongi lobiye hala ni fo sinkiri jama jama e ko wala da nyinin bango du wala e yo semester e tan tan tan tan tan tan tan tan sinkiri jama jama aka wale da nyinin bango du wala e yo semester wulan jaba gwele a nyin dun sembo abeni sembo has sembo fana kamya musolu yo fana is fine but uh, donc do fana biye ah. eh o oh, is nice duma mundu alo alo amma ala fenke aka fudan fenke amma amma ala nyin ala uh, onda 17 ol onda 17 ol wol ye gambia banko ma hawma sañoje o yandi ma nagana gana football o to ah, ah yalla wo eh. yalla wo is sing for all nations yes. all, all the nations yes yalla wo is good for us aha aha so ndun van au eh, summit wole ya banko ma nyaadi ya <laughs> ah, lela i don't know something like that aka fa nyaadi la <laughs> it's okay ah. <laughs> bro aba kayamu yo comme ñun ñun number one fan eh eh eh oncle jeliba toña toña nak ñu ngi la number one fan eh. ina ya jeliba nka jala nka lon ko ngelo nyaam bara mebe atama lu tolong adi nge fo ngol no mena dindi ngolti adi ngal mal al yu fati o mena dindi ngolti de ba ala al album le bembul da ah. thank you i have two different of album yango be juma ni juma aldo bi ga fa ama al obi jalba aussi aussi aussi jalba ah. aldo bi jalba 11 jalba 11 ah Antonio. won ko o won la moyle ah oncle jalba your number one fan is here anti muna alla Kemala number one fan fele jang Yo, wait a minute. nooy demee nii wala nii ah boobu garaaw na di. <laughs> waaw. laajal kii laajal kii ñun ñu ñun nga. when did Ali die? ah. I said Ali die? Sun Ali eh, ah. you don't understand. Ali or Son Ali? Sunni Ali. Sunni Ali. yes Ali? Sunni Ali is it? ask him Mohammed I don't know the father or the son. Eh? You, you are, this, this girl is even asking the question that she don't even know. This uh, girl ah, ah. know, this girl know. No, you, you do know. Uh, we, us, we, we us, we do not know. You don't know, Now ask us. Okay. Councillor, what is wrong? What is your name? Me, my name is Adam. Adam. Adam Adabo. Adam Adabo. Yes. Who is the current chairman of the Birkama Area Council? Current chairman. Mm. <laughs> musuma gis musuma gis musuma gis nag ñu of comme waa biir Kaama. Silifo Sonko pipo pipo ma egg waaw xaaral nu ndee xaaral xaaral nu ndee birégee mbaam nu ndee birégee mbaam danga ko mu taxaw kor kor suma tuur kor laa ko woo mu taxaw mbaami Adama Baro salaamaaleykum. sis naka. maa ngi fi. yaa tudd naka. man Hadi Diatou. Hadi waa Birka nga. Sukunda laa Sukunda. Sukunda. waaw Sukunda nga Sukunda Mendy. Ulef. Ulef Faye. Ndom. ci bay bu ñàkkato. bu ci. gis nga ji nga caméra léegi bii la tudd. waaw kii sa mbokk la. waaw moom maa nga nu ko doon a cuk taglu ok yow ban woykati njaago moo la gën a ne ah. Sylvester ba cintura ba eh, sa mbokki njaago ñu la seetaan de bu yoo ko ma dégg man sa mënu ma koo wees trayal rek wayal lu mun rek trayal rek mënu ma koo wees déedéet ah. xam nga jiji di malayka ma jiji di malayka xaw ma déedéet amuloo ko déedéet ah ok ciki tikiti eh, ciki yoo njaago yi noo leen de woy eh, chef de garage ole salaamaaleykum chef de garage ole chef de garage o fele ngo itodi maɗum chef de garage ah, o wa fo ñemolɓe jiiɓe kan totala tota totala <laughs> ah, kimoy totala chef de garage so mone ɓeɗi ari alhamdulillah ala ten to garage o jam ɓe ñaaɗile jande fof koɗi ñinomi makkere koɗi ñino hmm. jejelwa kuyate lonne ɓam jalba kuyata nka tomoy lon ma ma lon ɓari ala denkilol lonne ate nka moyla ha denkil juma ani ma ma ma don kilo no de ah, mm. ah okay sai njuma le birka ma ere kansu la ciyamanu jang yankuba dabo le jang yankuba dabo hmm. ah abar abarka yamu kor ifala njuma le ila favorite gambian artist nde nyancho nyancho hmm. ala ala den kilo kilo eh apa apa apachaki inya kasi nyadi lo aka aka aka aka la nyadi ah yalon devant police ah, olde wala tenda bari ka ah, nyancho lon tate ah tena na febo respond ah nyancho nyancho boy ke bama boy aka bono wiri boy nyaadi long eh drive o fele boy nyaadi long ne kulin ah? yeah ito di maru nde mustafa mustafa mustafa ah juma jeli ba ko yatela album fula funtita sanji juma no ma wala ah jeli ba lon dalwa heya ba aden kinin lanya kilin kilin doron kilin <laughs> no kada o rewo tuma len birka ma ele kanzula ti yankuba yankuba abar aha bayi to di madu yaya yaya ay eh, ite mun na famalti be kulin mija mhm. so ite ke mun na doku jam dam driver okay a ah, ala ñi drive ala garaso ah motol kata mun to ni mun to jan dulal jamal bi jannat okay bakar samuya bi jannat mandor bi jannat madina bijan mm. okay jumalen birkama ere kansula ciyamanoti yankoba dabo okay sain uh, jeliba à ala album folo a toɗum andu a safundita sañi jumale ntama wolonde ah. ah. ah, okay. baɗe jeliba londe nga jaliba londe yala denki yala denkel kile londe jaliba ah. na jaliba londe bare te musique dal muga ah. interest bak mm. abarka yamoy mm-hmm. assalamu alaikum ba mm-hmm. itoɗum domo abdoulaye abdoulaye ha ah, ite ɗon folode <laughs> ah. eh, na famaɓe na tomaɓe jam so iɓeɗi jumalen birkama ere kansula ciyamanode yakuba dawa deliba ala a fontita sanji andu album ñoñin to ɗum no mawlo nde dako abarka ah, yamoy ok eyy eyy eyy non salamu aleykum ah ñaari long ibe kuline itodi madu ya ya sanya eh, ya sanya yarfa ita bana mun famal ya lan janna famal siata jan ndena na fama to mu yaale ye man eh, albe kuline ye ma kuline okay jumalen birkama ere kanto la ciamanoti Eh, yankuba yankuba baba yankuba okay ju, uh, ah, uh, ah, yejeli ba ko yatelon <laughs> ala ala album follow funti ta sanji jumale no do follow do yala denkil ju yala denkil jumale long

aka af minna ko drame kunda ka drame kunda ngol jamun dame ah. ha fo fo fo wol musana wol wala na ah, ha ah, okay wala kanji mor ha wala na ngol sain ala album follow funtita sanji jumale andu album woni to no molo mawolo to be frank no molo fo fo man tejere bala be ye am fan of course bar malo na molo nak definitely okay barka ya mm-hmm, okay dad thank you thank you so much ika ika fula masimale dalar han jola masimankada jola amandam fulo dam <laughs> Ah, non jolal mam masi masoro jolal wole falo lelo waaw ah, mbare jolal jolal ni sereror sana khulel wol mam masi male ah. wo mam masi mal lon wole falo lelo falo sa fulo leta fulo leta mu masi mal okay on ma fulo ngala masi ma do abarka yamay <laughs> thank you oh, okay ibe kulim ye kul, kul. aha so sa ya ngomar ha ye jeli balon Jeli jali ba ha ngalon foy e bota bir kama ide ha bota bir kama je jeli balon bake ha ngalon bake yala yala ya, ya, song juma lelon ha musique juma yala denkil jumalelom ah ngala denkil jamalelon kili fonye kili ah e e moro dam fa bi jele moro dan fa ya ayabe ah, ayabe janjambure ah. ala nya ngabu ngala nyu ah ay ah. la noto ay noto ay noto moro dan fa ya bi janjambure aha say ala album follow a funtita sanji jumale ando album nyin todum eh non do fo non ah jumale birkama ere kan la chiamano eh eh something sonko Something Sonko. Yeah. Something is not a name. Uh, like. a ah. ah. Okay, Abarkayama. Okay. Yes, my guy, this is another time, another Korka Street Talk. We are right here at Birkama. So this is the end of our show today. Uh, I really have fun at Birkama. So always when you Birkama, wala Gunjur, wala Katong, dama do wala am fun because of niti nuñ mel. Comme nu gaay dé laké, nu gaay dé living xam nga comme xolal ko tek may bi rek even though si waxutee sax dina la jox benn smiling face ak yooyu noonu duñ dee daw so mooy loolu Korka street talk la woon tey nag ñu ngi si Brikama our question today in uh, uh, at the Gambia College in which year the Gambia College was built it was 1978 1978 uh, leen build Brikama Brikama College Gambia College it was 1978 so ñu ngi ko ñu ngi ko dooree Yundum Barracks fële after later they moved to later they moved to Brikama so mooy loolu it was built in 19 1978, that's Brikama College, was founded in 1978. Anyway, 1978, Brikama College was founded. Thank you, bro. So after that, we were asking uh, who is the current uh, uh, uh, who is the current chairman of the Birkama Area Council? It's my brother, my one and only brother. Uh, uh, this guy is Yankuba, Yankuba, Yankuba, Yankuba Dabo. Yankuba Dabo is the current uh, Brikama uh, Area Council Chairman, Yankuba Davo. Thank you so much, my brother. Uh, you are doing a wonderful job. Keep uh, on doing the wonderful job. Let's push him. Uh, ñu jël politique ñu teg ko fële su nekkee time yi liggéey la ñu liggéey so thank you so much Yankuba Yankuba Davo. Keep it up. Keep it up, Yankuba Davo, Brikama Chairman, Brikama, Brikama Area Council Chairman. Thank you so much. So mooy loolu suñ fa jógee tamit we were asking in which year was Jelly Bass released his first album. It was 1993, and the name of the album is Radio Cancan. That album was recorded in Paris, France. So Brikama, uh, uh, uh, the, one of the most famous man in the Gambia is uh, Jeliba Koyate, and the most famous man in Brikama is Jeliba Koyate. His first album was released in 1993. Uh, the album was recorded in France, Paris. Also, uh, also uh, the, the, the album is called Radio Cancan. so mooy loolu rek li laa leen amaloon say korkas stock bi ku nekk ab Birkama area council seen chairman bi mooy Yankuba Yankuba Yankuba ah, Dabo mooy seen chairman bi keep it up ah, Mr Dabo ila doo ko ñi ñaatale ah nga politiko lan di jana moo lee doo ko woke so mooy loolu so nit yaa ngi liggéey thank you so much suñ fa jógee tamit ñu ngi laajte ban iya sanji jumaale jëli baa ko yaate la album follow fot bota wo album ah, album o ñing funtita in 1993 and album album album album Tony uh, Radio Kankanglom and that album Galia record jana uh, France Paris so lii laa tey today my driver was uh, suma sëriñ may taalibe bu mag bi suma caméra lady bi tey moo nekkoon te uh, uh, Eliza Saba Mendy one of the only man Njaago professional camera woman Njaago yëpp kii rek ay camera woman so mooy loolu rek yow moom li fi naka premier so wa nga teres daf ma war a jox boppi mbaam yow premier taw nga maa jox li la amaloon tey si waa Brikama see you next week mooy loolu another show another time another Korka Street Talk